ant euh, jaa jëf mbokk yi sunu gan Abdou Mbow salaamaaleykum. maaleykum salaam euh, Babacar. ngay député euh, yor kàddu APR ci adjoint yaay porte-parole adjoint Alliance pour la République di parti Macky Sall bi nga xam ni fan yi daa yëngu lool ndaxi kàddu yu yu jip ci diggantey kilifa kàddu yu ëpp ci nettali sax bi génne ngeen communiqué ne. ki ñu naan Moustapha Cissé te nekk vice président ci assemblée nationale euh, da ngeen koy woolu ci li ñuy wax commission de discipline maanaam kuréel gi euh, yar gi ci biir APR ngir déglu ko teg koy daan moom koy communiqué bi teg na koy daan ba noppi daanaka boo boo jàngee sax ni ngeen ko waxee du noonu am. waaw jërëjëf euh, Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu sénégalais sénégalais yi ñuy déglu yëpp waaye comme ni nga ko waxee rek communiquer bi moom dafa def li nga xamante ni moom mooy position parti bi fi ñu toll nii ndax euh, comme ni nga ko waxee léegi damay fàttali rek ne euh, alliance pour la république parti la boo xamante nii ki ko jiite mi ngi tudd président Macky te président Macky Sall li ko nit ñi xamee sénégalais yi xamee ko ko àdduna bi yëpp xamee ko ko mooy koo ci waxal danaan d'abord nit ku dal la nit ku am yar la. te jàpp naa ne nit ku mel noonu bu jiitee kuréel ñu koy wax parti politique ñi ci nekk war nañu mën a di xool ci moom ak na nga xam ne noonu lay doxale ak parti bi aussi mën a am quand euh, doxalin bu mel noonu li nga wax léegi kàddu yu jéggi dayoo yooyu nga xamante ne nii euh, dégg nañ ko mu jóge ci suñu camarade Moustapha Cissé Lo bi li mu wax rek mooy euh, dafa am mbetteel ndax comme ni ko sénégalais yëpp amee di ñaawlu li nga xamante ni mooy kàddu yooyu juge ci euh, responsable bu mel ne Moustapha Cissé nga xam ne responsable de premier plan la ci parti présidentiel waaye aussi am ay ndomba tànk yu am solo di premier vice président assemblée national muy deuxième institution bu Sénégal nekkoon fi président parlement CEDEAO pandant quatre ans donc du responsable bu ndaw. donc bu ñu déggoo kàddu yu mel noonu nga xam ne euh, ñaaw na sax ñu ciy ñëwaat ci nettali kooku jàpp naa ne euh, xel nangu ko parti bi def benn communiqué bi nga xam ne ki nga xam ne mooy porte parole bi di Seydou Gueye moo ko signé démb le 5 di ci ñaawlu kàddu yooyu di wax rek ne ñun dañu koy ñaawlu ba fu ñaawlu yam euh, di wax rek ne aussi parti bi dina jël ay responsabilités am. mais justement te yi muy jël nag. dafa jóge ci waa damay ñëw rek ci communiqué bi après nga ñëw euh, président Macky Sall saisir li nga xam ne moom la ñuy woowee commission discipline parce que dañu jàpp ne parti politique association la te am na yoo xamante nii bu ci amee responsable def ko jàpp naa ne war nañu mën a saytu la nga xam ne moom la def xool la nga xam ne kàddu yooyu loolu la laaj ñu jël ay daan. teg ko ci lool loolu mooy li nga xamante ni moom la communiqué moom lay laaj teg ngeen ni daan ba noppi waaye kuy atte itam kuy atte kuy atte kuy atte da ngay atte dëgg tollele mhm. ndax euh, Cissé Lo kàddu yi mu yëkkati da doon tontu ñeneen ñu yëkkati yeneen kàddu yoo xam ni nee na fàng ñu gis ko ci internet bi ñam doon tontu noonu di leen teg kàddu yooyu ñoom it yëkkati nañ yeneen kàddu yu ñaaw ñoo njëkk a yëkkati ay kàddu yu ñaaw sax teg ko ci moom léegi bu ngeen bu ngeen convoqué lu tax du ngeen convoqué ñëpp xam nga Babacar nag waxtaan wax dëgg ca la yow ci sa bopp yow yaa wax ne kàddu yi ñaawlu nañ ko keneen koo mën a wax yëkkati na kàddu kàddu yu mel nii amul ci kenn koo xamante ni ñi ngay wax yëkkati na ko parce que nag aussi ñun ñëpp ay. sénégalais te sénégalais yi ñu ngi ñuy di di di di di ma jóge ci nga bàyyi kenn ma tontu la tamit. bala noo déglu ma déglu ma déglu may déglu damay leeral. waaw Farba Ngom. waaw amul baatu wu ñaaw wu tegul ci kaw Cissé Lo Euh, émission bi mujj def ci TFM sax amul euh, turu mala wu jëlul teg ko ci kaw Cissé ngeen bàyyi noonu euh, réagiru leen woo wootewu leen conseil de discipline xaw ma commission de discipline léegi nag Cissé ngeen jël singale ko ne da ngeen koy atte. waaw xam nga Babacar comme ni ma la waxee rek xam nga li ngay wax nii moom. say commentaire ngay def xam nga. ci li ngeen di def non non non non non non non defuma defuma commentaire ay fee laa la tegal. non fee waxo dama ne naan Farba Ngom amul kàddu wu ñaaw wu mu yëkkatiwul ci mbooloo ci télé ak rajo te yënguwu leen bougé wu leen. waa dama ne ay kàddu saaga ak kàddu yu ñaaw yi nga xamante ni déglu nañ ko ba tax président saisir commission discipline amul kenn koo xam ne ci parti bi je suis formel mus na yëkkati kàddu yu mel nii. ba sénégalais yi ci boppam ñoom ñoo waxal seen bopp ñun ci suñu bopp ñu jël communiqué am kaddu yoo xam ne béral nañ ko ci sénégalais yi donc loolu mooy li nga xamante ni moo am euh, comme ni nga xamee wax ji rek les li ko tubaab di waxee les faits sont sacrés le commentaire il est libre wax ji moom mi ngi nii ñëpp dégg nañ ko te incha allah du loo xamante ne ni dañuy personnaliser mbir mi parce que du ay question personnelle mais question la yoo xamante ne nii léegi commission de discipline léegi lan la nar a def si mbir mi lan moo nar a nekk taxawaayam ci mi lan lay def waaw xam nga bu fekkoon ndax ñëpp déglu wala Moustapha Cissé Lo rek lay déglu pour teg koy daan commission de discipline commission de discipline bi moom li muy def bu ko defee ba pare jàpp naa ne euh, yéen ñi nga xam ne yéen ay tas xabaar yi di ngeen jot ci xabaar yi parce que bu fekkoon ne commission de discipline bi damay ñëw yi wax lu muy def jarul muy réunion parce que bu ñuy wax réunion démocratie la nit ña ca nekk wax taan euh, daan ne feeyi nii la def kii la ñuy déglu kee la ñuy waxal kee la ñuy wax. mais fee du kenn nit rek ay nit ñu bëri la ñu ñu ñoo ko seq mbir mi pour euh, pourquoi ñu benn nit rek euh, la ñuy. waaw xam nga bàyyi ñeneen ñi xam laaj ak tontu la. commission bi réunir agul commission bi bu réunir ba pare bis bu ñuy ñëwee ba ne leen lii moom mooy kàddu yi parce que aussi il faut ngeen xam ne ñun suñu parti. dafa am ay sart suñu parti dafa am ay texte ak xamees na ko Abdou Mbow dañ ni texte ak règlement intérieur yi dañuy ni wu ñaaw wi nga xam ni Farba Ngom wane na ko ci Sénégal ak ak i génne fetal ci kanamu préfet yooyu ñu fi doon nettali est-ce que xaj ak seen ak kumba am ndey kumba amul ndey amul ci seen wu doxalin convoqué ngeen Moustapha Cissé Lo laata moom Farba Ngom def na lu lu garaaw itam te bougé wul wala moom lim farak euh, jege loolu ki Sall ak Marème Faye Sall moo tax kenn du ko laal. waaw xam nga loolu aussi moom comme ni ma la waxee rek commentaire la. aw laaj la. waaw ab commentaire la laa ko jàppe man parce que yow laaj nga ko jàppe man commentaire laa ko jàppe li nga xam ne moo am ba des mooy suñu parti amul kumba am ndey kumba amul ndey nee naa dafa am ay sart yoo xamante ni moo lal parti bi muy statut ak règlement intérieur ñu ne lii soo ko defee lii mën na la cee fekk lii soo ko deful lii du la ci fekk loolu nag jàpp naa ne ñi ko mën a apprécier parce que association boo xam ne dafa am commission de discipline commission de discipline bi dafa am ay membres yoo xam ne dañ leen a wóolu ba ne leen yéen kat yéen a war a saytu la nga xamante ne nii euh, parti bi bu ci amee ñii war nañoo xool la nga xam ne moo ci war a am ki nga xam ne moo mën a saisir commission de discipline bi mooy le président du parti parce que moom la ko sartu parti bi jox saisir na commission discipline commission discipline dina def la nga xamante nii mooy liggéeyam commentaire yi nga xamante ni nit ñi dañ ko ciy def nag ñun li ñu amal njariñ amal ñu solo mooy président de la république Macky Sall dëgg jub ak dal ak yar la créer partem ña nekk dañoo jàpp ne dañoo war a am dal am jub ak dëgg gu ñuy doxal mhm. dëgg googu ak amul dara loo xamante ni dina tax ñu ne ma sàmba wala ma demba lañ ciy jàppale wala kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu mënu cee nekk parce que sénégalais yi ba ñuy jël réew mi di ko dénk président de la république ak ñi mu àndal dañoo am yaakaar ci moom dañu am lu ñu gis ci moom dañu am ay valeurs yoo xamante nii moom lañu gis ci moom. Mhm. te valeur sociale yi nga xamante ni. mooy cëslaayu Sénégal loolu Farba Ngom wanewu ko te kenn laalu ko. xam nga ba tey foog ñu koy baamtu. ba tey waaw ba yaay baamtu di jàpp nit waaye dama la ñun association bi ñu yor. dafa transcender ay personnes ñun li ñu intéressé moom mooy sénégalais yi yar ga nga xamante ni. li ngay wax vraiment c'est pas cohérent Abdou Mbow. waaw non déggoo li ma la loolu bu la neexee nga def ci sa commentaire encore une fois de plus Babacar waaye munoo maa teree wax li may wax parce que sénégalais yi may déglu xam nañ ne président Macky Sall parti bi mu yor ak ñi ci nekk dëgg jub ak jubal lañ leen xame te amul dara. amul kenn koo xamante nii di nga def loo xamante ni di nga mettre en valeur cela mais coow lu mel ni du gulet euh, amoon na fi weer yële ñu weesu euh, ñoom euh, ñu toog ku nekk di xas sa morom di wax ay wax yu ñaaw mais mujj woon fenn nëpp nëppal ko mu jàll tey jii lan moo tax subitement ngeen bëgg taxaw régler problème bi alors que am na fi amati fi ñu bàyyi mu jàll loolu moom boo ko waxee ne am na fi amati fi yow sa bopp xam nga ne kàddu yu mel nii mosoo dégg waa déglu ma mosoo dégg ku ko wax te boo ko dégg waaw dégg xam nga yaa ngi wax waxu xaste xam nga damaa bëgg ñu wax ay fee mbir bu amee dañuy wax feey xam nga coow lu mel nii yow soo waxee si waxale yàlla xam ne mosu fi am su fi amee nag ñu def loo xam ne peut-être musul am donc je pense que il ne faut pas que ñuy déplacer débat bi ci wax coow yu non déplacer wuñ ko kaddu yu ñaaw moom kaddu yu rek la la mën a doon waaw non déggoo ma la te li la njógu wax moo fi am euh, loolu dëkkee ngeen ko seen parti waa non Babacar loolu soo ko waxee comme ni ma la ko waxee am na foo xamante nii mënu ma fa yegg mais li nga xam ne moom laa mën a wax mooy yow ci sa bopp ba ngay tàmbali da nga ne kàddu yu mel nii moom musuñu koo dégg kàddu yu mel nii ñaaw na ñaaw na koo xam ne mënoo ko nettali te ñemoo ko nettali yeneen kàddu yu jiitu lii itam mën su koo wax ci rajo non déggoo li ma la wax musoo dégg musoo alliance pour la république nit yëtte fi ay kàddu saaga ay doomu aadama ñu génne audio musul am kooku je défie quiconque peut m'amener des preuves par rapport mais mais kàddu yi indi coow li. du kàddu yoo xam da koo def déclaration publique. ay vocal la na coow waaye ça dépend nu génne ko tasaare ko. bon man tey jii xam nga lan moo a fi indi du ma fi nekk ne déclaration maanaam sax mën na si na ko jàppee waxi biiri néeg. waa dégg ko ci biti. waxu biiri néeg la wala du waxu biiri néeg je pense que loolu appréciation bi yow munoo ko def te munoo ko xam da nga gis rek ñu bind ci mbir mi naan ne appréciation li am na peut-être xam nga ci loo xam ne xaw ma ko ci parce que taskatu xabaar nga te xam naa ne da ngay waaye nag euh, am nga sañ-sañ aussi wax li nga xamante nii moom nga xalaat wala moom nga bëgg wax waaye li ma la mën a xamal rek mooy li am am na te incha allah alliance pour la république comme ni ma ko waxee dafa am ay valeur Sénégal dafa am ay valeur yoo xamante ni moom lañ ñu xamee fii du mbiru benn doomu aadama. affaire bi dafa dépassé affaire u euh, Moustapha Cissé Lo Farba yaa xam Mbaye dépassé na loolu xam nga fan la mbir mi nekk fi mu ne nii mooy président Macky Sall responsabilité bi ko nit ñi xamee tey lay wanewaat encore une fois de plus que responsabilité boobu du ko bàyyi benn mu dem parce que bu damay fàttali chaque jour que président Macky dafa wax ne tant que je serai à la tête de ce pays je n'accepterai pas que ce pays soit déstabilisé par qui que ce loolu nag li muy wund mooy moom Euh, dëgg la ku mën a muñ la. lii nu mën a déstabiliser am réew la. dëgg la lii nu mën a déstabiliser am réew. parce que seen communiqué bi yéen a ngi. xam nga lu tax mu mën a yéen a ngi wax ay way. xam nga nan la mën a déstabiliser réew. imagine image yu Sénégal à l' étranger à l' international yóbbu. <laughs> sa sa turandoo xam nga lu mu mën a déstabiliser réew. sa turandoo sama sëriñ mag bi sëriñ Babacar daf daan wax ne booy jiite ay nit da ngay fexe tane leen te nag nit bu demee ba lay dénk baatam am na ci yow yaakaar nit bu demee ba lay dénk ay responsabilité am na ci yow yaakaar donc jàpp naa ne bu fekkee da ngaa nar mel ne ñoom amoo la responsabilité jiite leen donc jàpp naa ne nit bu dee da ngay jiite nit dafa am loo xamante ni moom lañ la war a nawe da nga war a nekk référence parce que tey jii en tant que député man li may nekk ndaw ndaw ndaw tey jii am na wax yoo xamante ni ñemewu tey di ko génne suñu doom yi di ko dégg di ko génne suñu jarbaat yi di ko dégg di ko génne suñu nawle yi di ko dégg parce que ñun dañoo yor baatu askan bi euh, Babacar tey yow mii taskatu xabaar nga da ngay tax di tas xabaar ci biir réew mi waaye yoroo baat man mi nga xamante ni parlementaire laa damaa am baat donc am naa responsabilité boo xamante ni tey war naa ko mën a sàmm ba sénégalais yi nga xamante nii dañ may déglu sénégalais yi nga xamante nii dañu jël seen baat jox ma ko ëllëg du ma def luñ may xeebe donc loolu moom mooy li nga xamante ni moom la ñu wax ci mm. communiqué bi te cette responsabilité là dinañ ko jël ba mu. ah yaa ngi wax ne président moom day jël responsabilité am et puis nitu valeur la am na yar mais gis nañ ne chaque fois ñi mu ànd ak moom euh, ñi ngi ciy xiiroo di ŋaayoo di saagante est ce que loolu du ne autorité am day défier autorité am maanaam euh, wekk gi ñu ko waroon wekk dëgg moom moo des ci biir euh, ñi muy àndal. waaw non xam nga comme ni ma la ko waxee xam nga association privée ku nekk daf cay dugg ku nekk am nga sa yar ku nekk am na foo jóge ku nekk am na sa éducation. nekkul nag loo xamante nii dañuy ñëw rek jël yat ku nekk ñu ne la jaaral fii déedéet moo tax ñuy wax statut ak règlement intérieur parce que bu fekkoon ne dañuy ñëw rek mu nekk pëcc xoo boo xam ne lu waay neex def loo def génn ca te dara du la ca fekk su boobaa mën nañu wax ne ah fii kat amul kenn koo xamante ne nii dafay euh, réguler waaye président de la république association bi mu yor malgré que association privée la waaye nag am na ay sart yoo xamante nii boo ko wàccee dina am daan yoo xamante ni moo lay tegul parce que gis nga ne à chaque fois suñu bëggee déborder dina revenir vers l'essentiel l'essentiel mooy lan mooy ñu nekk ci dal nekk ci njub ak jubal te jàpp naa ne loolu amul dara loo xamante ni dinañu ko wàcc parce que alliance pour la république jub ak moom jub ak jubal moom jub ak jubal moom faw nu taxaw fa ndax. Mhm. Euh, li Cissé Lo yëkkati ci kàddu saaga yi rek la la jàpp. waaye suli na yeneen. Mhm. ay ay càcc ci yorinu alali réew mi ci TER. junj na ko euh, junju na yeneen waxoon na fi drogue bi euh, ay kilifaa ko dugal ci réew mi mhm. di ci am koppar te kenn waxul yooya itam dañ koy koy dañ koy bàyyi noonu. ana procureur ana ana justice ana yoon ci loolu mu sulli dee su ko seet ba xam dëgg la am du dëgg. xam nga Babacar ñu doog a wax nag waxi saaga yi. xam nga nit soo euh, bëggee wax loo xamante ni nii danga nga ëllëg bu ñu la woowee nga mën caa dellu mooy nit ku nekk dafa war a yem palaasam def lañ ko def loo xam nga man du ma juge du ma procureur waaye nag. parlementaire laa boo xamante nii saa su ma waree. yaa fi revendiqué baat léegi ne am nga baat. waaw déglu ma moo tax ma ne la parlementaire moo tax ma am xam nga nekk am baat taxul nga nekk juge taxul nga nekk procureur damaa bëgg aussi dama ne ku ci ne nga yem fa nga xam ne fan la ñu yem loo xam nga yow mi tey jii. ab Mbow est-ce que li li Moustapha Cissé Lo jënd ci yorinu alalu réew mi mérité wul enquête. non déggoo au moins enquête parlementaire bu dee loolu ca wàll la. lépp lu mérité enquête procureur waaye député nga. lépp lu mérité enquête ci réew mi ña ngi koy def. lépp loo xamante ni enquête parlementaire mérité na ko ña ngi koy def lépp loo xam ne non déggoo li ma la dama ne président de la république. joxe na ay instruction ci juridiction yëpp ku ci nekk la nga xamante ni war nga ko def yaa ngi koy def maintenant nag c'est pas parce que nit wax na dara rek ñu ne loolu war nañ ci def nangam déedéet dama ne ku ci nekk. war nañ ko xool quand même xool ba xam ndax dëgg la am na wala amul au moins. ni George li ñuy xool lu la ñuy xool bari na. dama ne assemblée nationale lañ fay xool bari na parce que dafa am ay kuréel yoo xamante ni ku ci ne. lan ak lan ngeen xool bu ngeen faloo ba dama ne xoolal euh, Babacar bari na xam nga su ma nekkee fii naan la lan lan la ñu enquête c'est parce que loolu boo ma invité ah, euh, édition spéciale édition ne ma damaa bëgg nga wax ma ci nangam ak nangam ak nangam danaa la ci wax parce que chaque fois loo ma mës a laaj wala kenn ku nekk lu ñu ma mës a laaj te liggéey bi ñuy def tontu nañ ko barki Dembo Ndiaye am na benn taskatu xabaar boo xam ne seen rajo bi woo na ma ne ma a ah, Euh, ordonnance yi nangam nangam may leen ordonnance yi dafa am ay loi de ratification yoo xamante ni déposé nañ ko ci table assemblée nationale le 29 bii passé te loolu waroon na mën a xaar ba 2 juillet donc pour te dire que amul dara loo xamante ni mi ngi xew ci réew mi ñu war koo def wala ñu war koo càmbar ñu laaj ñu ci te duñ ci wax suñu xalaat bis boo ñu ci laajee. jamono wa jot lañ ca war a wax incha allah. léegi wàllu sanction yeeg yooyu noonu bu fekkee ne ay daan am na pour Moustapha Cissé Lo commission bi réunir ko dëgg la lan la ñu mën a xaar ndax dàq lay doon wala avertissement wala blâme lan la mën a njot euh, ci euh, moom ni ki daan ñun ko war a mën a. waaw man nag xam nga ne membre commission bi la sop weesuwul ma ñëw ne la commission bi dina def ndàngam te réunion rek comme ni ma la ko waxee démocratie la. yow bu doon yaay dogal looy def yow. waaw mais déggoo li ma la wax man dogaluguma te dogaluma. Hmm. comme dogaluguma te dogaluma jàpp naa lañ ca war a def du man maa koy wax.